yàgg nañoo interpeller Macky Sall mu yàgg nelaw ci problème bi yàgg nañ ko cee interpeller mu yàgg cee nelaw ndax li tax ma ne muy nelaw mooy Macky Sall amul renseignement bu mu amul bu mu xamul ndax ñun nit ña ko fal jox ko moyen dem nañ nag di ko muñ di arranger ba semaine bi am nañu ñaar ñu dee kenn ki jigéen la jabaru retraité dem na pour faju mënuñu koo faj ñëw na kër gi

contrôle Nafi Ngom xam rapport bi c'est du n'importe quoi. ah loolu ba mu nga depuis dix ans. les représentants des retraités chaque année nous jox leen 200 millions ñu tassaré ko ci rek mais mais bu nous ragal nañu yalla dinañu dimbali euh, euh, retraités ñuy faju suñu yoon ci li ci des lu waay def sa bopp. syndicaliste lañ ñoo ne dañoo représenté ay travailleurs loo leen fa téye waaye dafa yàgg nag. amul dara dara mel ni ndimbal mu gouvernement bi jog ne ma jox ko retraité yi amul. surtout retraité IPRES amul. ñun buñ mënoon a faju coow li yëpp du jeex. nan ñu faj jeex na te suñu suñu xaalis la est-ce que xam nga ne retraité bu dee IPRES am na ci yow 50 pour cent 50 pour cent yooyu bu ñu ko dajalee ñoom conseil d'administration bi ñoo koy lekk. moo tax nag. Euh, bi bi bi coronavirus bi ñëwé xamna ñaan nañ yalla ne sayé parce que coronavirus parce que retraité rime avec maladie maladie yoy ñuy doxal kula ci corona ci coronavirus japp rek c'est fini day développer maladie bobu nga dem. té bu nit ñi dé ba bari retraité yi bu ñu dee ba bari ñom ñoy jël conservation ñoy jël 50 pour cent yi seddoo ko seen bir waye nak nan ñu bàyyi ñu faju ñun loolu rek la ñu wax.